tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub yàlla baax na kon mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd à travers Univers ak différentes plateformes Dakar Plus euh, tey ñu ngi fii kër Ami Collé comme ni ñu ko defee sànq suñuy ITV daal fi am ki nga xam ne moo di rafet jiko nekkatul ku ñuy présenté ñu fekk ko mu daal di ñëw fekk si xaritam waaye ku xam-xam kooku Serigne Babacar Sy mu euh, si bés bi nga xam ne moo di appel bi cent quarantième anniversaire nga xam ne moo di Seydina Limamou Laye ne maa ngi nuyu ñaar ah, ñaar la nii daa bari sama bët wala boog ñuy filmé bari. <laughs> ñuy filmé bari mais rek la. <laughs> Ah. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci bisu mbégte la nuyu. ndax Seydina Limaam macha allah mu woote ah ñu ñëw. waaw xol yëpp sedd ndax nag ay jullit lañu li may faral di wax à chaque fois rek euh, que euh, ku nekkoon ci tarixa tijaan génn ci dem ci tarixa murid yokkuwul dara ci diine ji. voilà li am solo mooy ku nekkul ci diine l'islam nga indi ko te segam ñun ñëpp. ashhadu an laa ilaha illa allah la ñuy wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag kenn ku xewle ci yëf yi rek te rawatina tur wi nu wi tuddee suñu bopp def suñu kémt lay ba jéem a fexe ba suñu jikko ji ñu jéem koo rafetal kon kenn ku kenn ku am bés rek mu doy nii kon rawatina ku toll ni Seydina Limaamu kon bu xewlee li war ci ñun mooy même bu nu amul woon ku nu invité danoo war a ñëw di dox di taxawaalu di taxawaalu di wax wane suñu cofeel ci bés bi ba sunu heure dem ñu dem ñu dem jot ñu dem rawatina ba nu amee ñoo nga xamante ne sunu ndax ñun on est des artistes comédiens sunu mbokk artiste comédien comédienne yëpp invité nañu kër Moussa Diallo nag sant nañu yàlla bu wér a wér a wér ci cofeel googu ñu ñu jox ba nga xamante heure bu appel bi jotee kenn ku ci nekk day bëgg nga ñëwal ko ci bésam ak cant la mais nag noonu la ko góor gu baax gi defee muy Seydina Limaam ñun tamit noonu la ñuy defee suñu kémt laay kàttan yàlla nañ ko fekk ay ati at incha xoolee euh, tey ñëw nga ci li nga xam ne moo di appel bi euh, macha allah bi passé ñu daal lay gis fi nga xam ne moo di euh, Touba ak te ñu ko xamee xam ko ak Seydina xam ko ak Serigne Babacar si lan moo waral polyvalence boobu ci këru diine yi. waaw mais mooy li ma wax léegi rek que ni ñun segam ay jullit lañu. Mhm. voilà ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jaadu nag mag ñi ku xewle nga demal ko ndax mag ñi ñoom ay coxeur yonent bi lañu. voilà kon segam segam chauffeur bi moom moo nekk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñun suñu mbir bi suñu yëf mag ñi ñu ngi def si ñu def nañ la tout mhm. ba teg njaboot gi ci yoonu siraatal mustaqim kon ñun ñi fi desandi aussi ndax euh, mag ñi fi jógee ku ci mel ne Cheikh Amadou Bamba Cheikh Seydi Hadji Malick keneen keneen keneen sedd Seydina Limamou mais ñu ñëwal tey hmm. keneen keneen ñoom seen jëf yëpp mooy fu fu Seydina Mouhamed teggee tànkam sallallahu alayhi wa sallam ñu teg ko seen tànk ndax ku nekk xam na ni Cheikh Seydi Hadji Malick loolu la wax hmm. mën na nag yonente bi ëppale ko mais fu mu teggee tànkam mu teg tànk kon ñun tamit bu ñu bokkee ci ñoom lu dul def ni ñoom ni ñuy def doxalee wala ñu di ko defee rek lañu war a def moo tax mag mu xew la ci kàttanu yàlla bu nu ko sunu temps bii mayee des fois sax ñu dem foo nga xamante ne sunu temps mayuñu ko mais cofeel moo nu yóbbu yàlla xam na ko lu ci mel ne euh, kazu rajab bi ñu génn yàlla xam na ko ba vingt trois vingt trois heures minuit presque ay 3 heures du matin laa déparé sama kër ndax booba xam naa ni maa ngi ci ay xat-xat ba maa dem ba pare sama yaram sutante sama yaay ni ma noonu noppalal sa yaram nga bañ a dem waaye xam nga koo xamul noo koy def nit am na nu muy amee ci yow cofeel ba bu sañoon fu mu turne ay bu ñu la ko laajee gis la kon bu xew lee tamit euh, bëgg yow nga teew ca loo mën a def da nga koy def pour teew ko muy Fallou Mbaye Galas mu nekk nit ku baax nekk suma frère nekk suma xarit wax dëgg yàlla appel euh, lu xew Touba wallahi lazi moom may solal carburant lu xew tuubaa nag laa la lu xew Touba mu defal ma carburant ni ma non mu lay neex di la nakkari da ngay ñëw ba da lay jox ak ku gis samay vidéo fan yële gis nga ma téye xaalis bu bari mu jox ma ko ma naan ko léegi ana argent de poche xam nga yooyu mënuloo koo fay doomu aadama yi yow nit ki lay woo ci yiw ba noppi ëlbatiku di la jox teraanga mhm. loolu mënoo koo fay ci la koy defal kon na yàlla dolli jàmm rek incha allah mhm. rafet jikko ñu xam la ci maanaam nga nekk porte de voix ba pare nit ñi bàyyi la xel bu baax a baax li nga xam ne moo di situation réew bi di politique bi gis nañ ne yi ñu fi demee ak euh, am na sax ay bakkan yoo xam ne tamit rot na ci est-ce que tamit loolu euh, soxla waatul benn jàngat wala tamit benn xamal pour xamal nit ñi bu gën wàññiwaat li nga xam ne moo di tension bisimilah dellu ci. ci politique bi instant bi fi mu toll ci tension politique bi ku ne gis na ni euh, jàmmaarloo bi ni mu mel ay bakkan ñu ngi ciy root ay gaañu gaañu euh, ci li nga xam ne moo di dëkk bi te nekk dëkk boo xam ne tey jii sëriñ su bari ñu ngi fi est-ce que to loolu noonu jotul ngeen ngeen bàyyi ci message pour a xam li nga xam ne moo di taxawaay. dafa am loo nga xamante ne ki la mag jiitu la ci àddina bu ci waxul rek boo ca waxee après day di nga mën nga dem ba xam nga nit nit rek la nit dafay am fudd mhm. des fois mën na wax ba waxee xaal soo waxee xaal tamit mën nga waxee mën nga mën nga blessé koo nga xam ne waruloo ko blessé mais juste li ma ci mën a wax mooy ñu delloo si waat suñu xel yi mhm. xam ni réew mi lu dul jàmm xaju fi Euh, def naa statut démb sama xol métti ci xale bu jigéen bi nu doon dund ndax dama xam jigéen ak ni ko suñu borom wormaalee ku war a mën a jël jigéen di ko dóor dóori métti yooyu ba wéqi ko ci dernière fois bi noonu sama xol dafa metti voilà gis naa ñuy wax naan bu toogoon këram loolu du am mais xamuñu ndax dafa doon dem wuti ji lu mu dundalee ndayam xamuñu xamuñu ndax urgence moo ko génne même bu dee da doon manifester wu ji manifestation fi lañ ko fekk te lañ koy bàyyi nit dafay am nakar di génn déjà maa ngi sama frère euh, Khalifa xalifa tiktokeur gis naa ko muy wone benn manifestation bu am je pense que Bordeaux la manifestation bi am voilà xalifa tin maa ngi ko gis mu ngi koy wane nga gis ni manifestation mu ngi am tubaab bi ñu ngi génn di manifester te kenn laalu leen mais c'est vrai que ni nag ñun suñuy ndawi réew da cee bari ñu indiscipliné ndax gis nga mën nga manifester wu ci li la nakkari mais tamit jërul ñuy sànnante xeer ak a def yëfi réewam ndax nag yar lum la mayul rek leneen mënu ko may ci àddina war nañu si waat xel xam ni homme de tenue yi ñi nga xamante ne ñu ngi def lu metti ci ñun ñii wallaay loolu nekkul seen mbébét pour ñu def lu mais ñoom it nanu delloo si seen xel yi ñoom homme de tenue yi xam ni ñun ñoo leen fi teg suñu kaaraange ñoom ñoo ko yore kon ñoom ñi ñu war a couvrir couverture non bu ñu ëlbatikoo di ñu def lu ñu metti day nakari lool mais nag kenn ku ci nekk xam ni nguur bu dul nguuru suñu borom bu day jeex voilà yàgg-yàgg Macky Sall dafay jóge moom loolu mu koy neex mu koy neex ak mu di ko nakkari dafay jóge te keneen kiy ñëwaat aussi bu ñëwee yàlla na nu yàlla suturaal mais daal li ma mën a li ma mën a wax ba mën ko wax mooy ku fi mën a toog wallaahi bu doxul ni mu war a doxee tamit lu raw li li ñuy wax Macky Sall ak koy def nii lañ koy def te nag ñu waxante dëgg mais jàmbaar dëgg Macky Sall la mm. man je suis apolitique mais kenn ku ci nekk sa yëg-yëg nga yor kenn ku nekk sa bët nga yor kenn ku nekk c'est vrai que ni li li ñuy dunduñu ñun neexuñu ndax du lii la ñu bëggoon euh, kenn ku ci nekk ñi nga xam ne dañu ànd ak moom sax d'accorduñu ci élection yi jot ñu ne élection yi dañ ko koo puusaat loolu kenn d'accordu ko voilà mais nag lu mënta ñàkk su amee na ñu xam ne allah kulli àll dafay jóg loolu moom mu koy neex ak mu koy naqari dafay jóg dañu indi keneen kon na rafet dañu jàppalante te yërmande bi daw rek ndax àdduna amul solo te loo gis ci nettali lay mujj kon moom moom mi nga xamante ne mooy suñu njiitum réew nu dimbali rek yërëm na ñun tamit ak njabootam ñu xam ne suñu kilifa la ndax yàllaa ko fi teg mais li ñuy wax mag ñi fan ñii ñaaw na torop naan kilifa diine yi nangam kilifa diine yi nangam gis nga réew mii mënuñoo fexe ba kilifa diine jóg fi mënunoo fexe ba duñu leen jox cër mënunoo fexe ba duñu leen sukkal ak raamal ndax loolu seen i bàyyee ko fi liggéey seen i maam liggéey ko fi kon loolu il faut que mu am kon nanu delloo cër bi yow yow tey man su ma su ma amee nit mu nekk suma xarit maak moom nu waxtaanee lu ñuy waxtaanee ci suuf ndax du lépp a war a jëm kaw su ma waxee ak yow li may wax ak yow mu ci suuf man ak yow ndax man ak yow la cër bii waral su diggante mais suñ ko waxtaanee te li ma bëgg defaloo ko mais c'est très normal ma tëj sama gémmee ndax damay xam ni su ma waxee ci kawit am naa njaboot te mën na demee neneen mais ku leer nit ñi ndax kilifa diine yi li ñu war a wax wax nañ ko wala waxuñu ko. Mm-hmm. kon nanu rafetal rek te amaat yar ndax yar lu mu la mënta may walaay mënu la ko xañ kon nañu rafetal te te bàyyiwaat xel suñu kilifa diine yi. te a wax sëñ sëñ Mountakha Mbacké wax na dëgg sax yoonam nekkatu ci politique bi dootu ci waxati ba di ko wax wax yoo xamante ni si sax bu jigee ci moom dox nañ naan fi ñu koy waxalati ñu mel noonu politique bi amee. waaw xam nga mooy indiscipline bi ma wax rek. Euh, yooyu yëpp ñàkk yar la gis nga ki am yar am na loo xamante ni du ko wax mukk waaw ndax dina ko jombale boppam jëmm ji toll ne euh, sëriñ Muntaxa mooy cheikhul xadim ci ci àddina ku mu neex ak ku mu nakkari lépp loo am jomb-jomb wax ko cheikhul xadim war nga koo rusa wax war nga koo mu rusa wax sëñ Muntaxa nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax sëñ Muntaxa taxawal na réew mi fu ne gis nga Sénégal gii wallaay defi lu baax dafay jafe mën nga fee def téeméeri mbaax benn bés nga juum ci benn njuumte lépp loo defoon ci lu baax ñu fàtte ko sëñ taxa ñaata yoon la taxawal fii Sénégal ñaata yoon la nu taxawal ay métit am mu génn def alalam def kattanam def dooleem lépp mu def ko kon wax dëgg yàlla ku ko gërëmul jaajëfaloo ko man waxu waruloo yëkkati lu toll ne tar fatal ay ni di ko jëmale ci jëmmam ji nanu amaat yar bu baax a baax a baax a baax ci suñu kilifa diine yi ndax ñoom ñoo fi représenté yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa léegi jëmm ju toll na yonent bi dafa nekk ku mu neex nga jël sa baaraam nga teg ko ko kon ki ko représenté ci àddina danga ko war a jox cër delloo ko jukkal mhm. loolu képp mooy suñu cër kon nanu bàyyi xel suñu mag yi bu ñu waxul ci politique seen yoon nekku ci buñ ci waxee aussi seen yoon nekku ci kon bu ñu leen wax nangam wala nangam nanu delloo si suñu xel yi rek te àndaat ak yàlla rafet rafet ko comme ñu ko waxee comme rafet ji ko mu mel ne que moo parce que tey bu ñu gisee internet bi yeneen ci oto ce que tamit waaw dëgg la xam nga fii ku fi baax rek sa jikko rafet baax moom ku ko def sa jikko rafet ndax nag ki nu gën ñun ñëpp tagguñu ko ci taar tagguñu ko ci judd tagguñu ko ci leneen jikko ji rafet képp la ko taggee mm-hmm. voilà kon nag euh, kenn ku ci nekk ci ñun mm-hmm. gis nga borom noppi gar mm-hmm. bu nangoo déglu lu ñaaw ñu ko ci àddina voilà kon nañu fexe rek di dégg lu baax tey gis lu baax bañ a bàyyi xel lu bon ñu bàyyi weerante bi ndax àdduna bi wala àdduna bi dafa gàtt bés bu ne nga gis koo nga xamante ne amaana yéen a bokkoon benn lal bu ngeen di tëdd sa njàmbaarte teewu la fi yàqu sam yóbboo ko loolu nag ku koy bàyyi xel di nga bàyyi xel ci sa àdduna lu baree baree baree bëri ndax nag ci ñun ñi fi toog nii ñëpp kenn ku ci nekk am na lu la jege woon loo perte amaana nga bokk ak moom ci deret amaana nga bokk ak moom ci xaritoo wala nga def nangam ak nangam mais ku ne am na koo nga xamante ni jege woon na la tey perte nga ko waaw léegi nag loolu segam mu ngi am nanu xam xam nga bu njëkk ba da doon gis ne dee bariwul woon boo daan gis nit génn àdduna balaa ngaa gisaat ku génn àdduna mais xoolal léegi nii maanaam chaque jour néew na nga ñàkk dégg ni doomu aadama génn na àdduna kon nanu rafetal nañu rafetal rek te te rafetaatal jikko yi ndax nag jikko daal mooy nit kon nanu rafetal jikko sa diggante ak influenceurs yi. waaw ñi ma ci xamante ne ñëpp nag wax dëgg yàlla nag samay nit lan ku ma ci namm maa ngi dégganteeg yow voilà man xam nga yàlla dafa dafa dafa def ni man au ku yàlla bind xaar ma yàlla. Euh, amaana sax jàppewu ma sama bopp influenceuse la barke Cheikh Tidiane sama bopp loolu voilà man xam nga lan laay def mooy dafa am loo xamante ne wareef gis nga tey su ma dugaloon vidéo benn nit vu ko wallaay déranger wu c'est parce que benn nit bi ko vu amaana kooku dimbale nga ko moom amaana kooku la nga wax jëriñ na ko moo tax man ay affaire ndax am na ñoo xam ne peut-être yaa ngi influencer ay nit mais taxul nga jàppee sa bopp ndax baatu influenceuse dafa dafa diis de mm-hmm. voilà dafa diis très bien voilà xamuñu ko kon loolu moom moo tax daal li am ba am daal mooy képp ko xamante ni yaa ngi tiktok wax dëgg yàlla yàlla def na ni aw ma kenn xaar ma yàlla maa ngi ñëpp ci jàmm ak salaam yàlla na leen yàlla li jàmm te dolli leen taw incha allah. jërëjëf merci beaucoup. daani sama waay la. jàmm jaara wusu. wala ma sa bi jaara.